salaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñi ngi ñi ngi dégg ni ñi ngi dégg ni dafa am ñu nekk marché Ocass ah, di di di ay cantine ñu xam ne loola du ndigalul sëriñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbend ak njabootu Cheikh Ibra mboolem njabootu Cheikh Fall ñi ngi si corniche bi képp ku ngeen dégg ni ma nga marché demu fa si ndigalu sëriñ bi ab saay-saay la boo xam ne la muy def àndu saak ndigal Baye Fall daal ñi ngi fii si ndigal si corniche bi rokaat bi ñun ñëpp a ku ñu dégg fa woon nag na xam ne loola du responsabilité sëriñ bi maa ngi woo léegi mu dem fa dina xam moom la fa xew incha allah